maa ngi wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun euh, bi ñu déggee tiis wi ñun ñëpp suñu xol tooy na euh, bu dee sax koo xamul boo déggee ne dem na dangay am lu la metti rawatina ñu nekk ay mbokk ñu nekk ay doomu Sénégal mu nekk oto yu daje metti na ba fu metti yem waaye nag jaam moom li tax muy mën a muñ di mën di taxaw mooy gëm ndax bu gëm amul woon foog naa kenn dootul def des ci kaw suuf ndax saa su ne nga dégg lu metti saa su ne nga gis lu metti kon nag ñi ngi jaale président Macky ndax moom moo njaboote ñëpp ñi ngi jaale aussi ñi nga xam ne seeni mbokk bokk nañ ci métit woowu ak tiis woowu di ñaan suñu borom ñun ñëpp mu may ñu xolu muñ di rafet lu deuil national bi nga xam ne décrété nañ ko looloo tax ñun ñii bi ñuy tàmbalee suñu liggéey bi dañ ko ubbee ay ñaan ñaanal suñu aji daw la yëpp ndax metti na di ñaanal aussi ñi ci gaañu yàlla yëkkati leen ba nga xam ne dinañu mën a dellu seen njaboot yaakaar naa ne nag yoon yi war nañ ci nag léegi taxaw def seetlu bu yaatoo yaato ndax gis nañ ne daal li yoon yi di jël léegi mu tollook li wér-gi-yaram di jël maanaam lu jëm ci mbiru santé xëy na gaañu ci sante la la loolu sax mën nañ ko dégg waaye ci loo xam ne xëy na am na ndogalu action humaine bu ci dugg euh, du ñàkk buñ ci jëlee yenn mesure dolli ko ci mesure yi nga xam ne état bi mi ngi koy jël ak effort yu am solo yi nga xam ne état bi mi ngi koy def du ñàkk yàlla mën nañu ci dimbale aussi ba yu mel nii waxuma la géej fi sax mais dootu fi am